sallallahu alayhi maa ngi yëkkati kàddu nuyoo ak kàddu ziar muy kàddu nuyoo ak ziar yu gën a tedd ko jëmale ci sunu papa sunu xalifa El Hadji Maam bu Mamadou Cheikh bu Cheikh Bounana Kounta xalif général bu Njaasaan ak bu Ndànk di nuyu mboolem axliw kunta bi ànd ak moom di ñu dalal tey fii ci Njaasaan ci bés bu màgg bi nga xam ne gën di mbindeef moo waraloon ngeen taxawal ko muy di ko màggal di nuyu maam bu ndar di rakk ci yow di xale bu Sidi Bale di nuyu Bekay Kunta Mamadou ak El Hadj Sidi Mokhtar Kunta bu maam bu bay bu di nuyu également Sidi Mohamed Kunta xalif bu Sidi Yaxya Serigne Sidi Mokhtar ki ne Kunta nekk itam xalif bu Cheikh Sidi Lamine di nuyu suñu xarit Ahmed Bachir Kounta ak Lamine Lamine Kounta di nuyu l'imam Sidi Omar Kounta ak euh, suñu xalifa porte-parole di nuyu nag mbooleem euh, njaboot gi rawatina Mohamed Kounta di sa doom bokk ci Haut Conseil des collectivité territorial di nuyu mbooleem famille yi jóge ci ndànk sanc ndeer guyët kamataan ak mbooleem seeni dëkk yi nga xam ne ñu ngi leen fay retrouver ci biir Sénégal maa ngi nuyu monsieur le ministre de l'intérieur moo fi dalal ak euh, gouverneur de la région de Thiès ak préfet bu département bu Tivaouane ak sous-préfet ak mbooleem kilifa yi fi teew yépp responsable politique yi ci département bi présidente du conseil départemental ak euh, le maire Chérif Lo ak mbooleem élu yi ak responsable yi ñu fi tudd yépp ci seen tour ñu ngi ñëw bokk xalif bi bokk ak njaboot gi bés bu màgg bi nga xam ne mooy juróom-ñetteeli fan ginnaaw juddu sang bu tedd Njaasaan nag bu ñuy wax aussi diine ci réew mi faw ñu tudd Njaasaan loolu seen maam yu tedd yi ñoo ko liggéey ñaan ko ba yàlla wàccee ko mu ci si yow nga téye ko it téye bu rafet ñu lay ziar di la sant sëriñ bi te xam itam sa yéene ci réew mi xam say ñaan jëm ci man jëm ci Sénégal yenn yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi lool ci kanamu njaboot gi te nga ànd ak wér euh, lii Bachir wax daaw bi ñu fi ñëwee ne woon naa leen daañu taxawal makkaan muy kër mag kenn yóbbu ma ci la fi taxawoon mu amoon solo waaye ma ne leen yéene bi ëpp na loolu jàpp naa ne kër gi war nañ ko gën a yaatal yàlla may ñu ñu daldi di dindi loolu fi ne woon tabaxaat te mel na nu fi ak ñaari weer la jox rendez-vous pour jox leen caabi kër googu la bi ma ñëwee léegi itam di visiter place bi. xamal nañ ma ne ci wetu tànt bi dañu yëkkati liggéey jumaa ji loolu itam Pape nekkoon ci di ci liggéey di leen ci jàppale nee naa ko mën nañu bàyyi ñu mottali liggéey boobu ci anam yi muy gën a rafet loolu nag boo leen gisee ma koy doxal ci réew mi dafa fekk jàpp naa ne diine ji askan wi rekk ñoo ko solowoo te doomu réew mi ñoo yor diine ji ñoo ko ŋànk ñoo koy dundee kon nag defar bërëbu jaamukaay yàlla yi dafa bokk ci li état war a mën a def ngir darajaal diine fonk diine ak toppatoo diine looloo waral programme bi ngeen gis mu wër réew mi yépp nag bàyyiwul benn kër ah, ñu tàmbali ko di ñaan yàlla may ñu kattan ak fekke ngir li ñu sumb lépp ñu mën ko mottali yéene bi du loolu rek ndax domaine boo jël ñu ngi ci taxaw di ci def jéego ngir senegal mën a jëm kanam démb yéen a ngi koy fàttali ci wàllu dem ak dikk am na lu ama am solo luñ ci def loo xam ne mosuloon am ci senegal depuis bi tubaab bi taxawalee raay bi bari na donc loo xam ne tey taxaw nañ ci gouvernement bi di ci yëngatu ci sama ndigal li tax mu jóg rek mooy yokk taxawaayu askan wi yokk mën-mënu réew mi yokk itam euh, xéwalu njaboot gi ngir ñu gën a mën a toppatoo suñu bopp gën a toppatoo suñu diine gën a itam am dund bu baax fii ci àdduna ngir buñ delloo ci suñu borom ñu mën fa yaakaar alaxira bu baax waaye yal na yéex kon nag ah, yéene la ñu am di ci liggéey te xam naa sa taxawaay xam say say ñaan eh, ñu ngi tàllalaat loxo ngir yàlla yokk xéwali ci réew mi yokk sutura si ni ma koy waxee tam fu ne soxla nañu ngeen di waxtaan ak njaboot gi waxtaan ak taalibe yi waxtaan ak ndaw ñi ci li seen di sunu borom santaane ak li lislaam wax ñu dindi lépp loo xam ne bokk si dal ko sempi sànni fële ñu bañ a di maanaam nax nit ñi ak di leen këf wala di leen dugal si loo xam ne ay jafe-jafe la leen di indil loolu nag mbiru diine gi la te yéen a ci mën a wax ñun suñu taxawaay dinañ ci taxaw ni mu waree waaye faw diine ji nag ak euh, état bi ñu ànd lëkkaloo parce que ñoo seq njaboot gi ku si ne def ci wareefam ak warugaram ngir réew mi mën a mucc ngir réew mi mën a am jàmm kàdd yu gàtt la waaye kàdd yu am solo la pour ñun te mbégte la toujours pour ma ñëw di la fekk ci fii di fekk ci njaboot gi di bokk ak yéen bés bu tedd bii te di leen wax na rek lëpp luy seeni mëbët suñ ko xamee daañ ci taxaw suñ kem kàttan maa ngi gërëm aussi ministre de l'intérieur ak ñi ànd ak moom ñëpp ci liggéey bi di la sant kunta di la gërëm allahumma salli la sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëf jërë asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ne leen ñu ngi leen nuyu sëriñ bi ne mu ngi leen di nuyu sëriñ bi ne mu ngi leen di ndokkeel ne di gërëm président Macky sàll di la sant sëriñ bi ne gis nañu sa taxawaay ci réew mi waa kenn ëpplewu leen nee na waa Ndiassane kenn ëppalewu leen ci taxawaay bi. ak kunti yu yëpp. ak ahlul kunti yooyu yëpp. président lu mu wax rek dana ko def. ne président lu mu wax dana ko def. defal yoo xam ne fàtte mukk. ne teraanga yi mu defal askan wi ne loolu mënuñu koo fàtte. ñun ñaan lañu am. sëriñ bi ne ñaan lañu am. ne danañ la ñaanal. ci biir ak ci biti. ne protocole bi sëñ bi ne ngeen baal ko nee na xër gi ñu xër ci président Macky moo waral ku nekk bëgg a wax nde sëriñ bi ne xam nañu protocole bu baax ne lu aar président jàmmal ko dong ngeen bëgg ne ñun ñoo leen gën a bëgg loolu ne waxtu ñëwee ci kër diine yi na ngeen xam ni léppam garanti ne ndax balay ñëw dinañu jàng alquran ñaan ci mu ñëw ci bismillahi rahmaani rahim dellu ci bismillahi rahmaani rahim danañu ko teeru tatagal ko ñaanal ko it ne bis bi moo xat waaye président alxaaji maam bu Mouhamed ne teraanga yu bari la amoon yéene pour defal la ko ne defar nañu it ay teraanga ngir ñi nga xam ni ñoo ñëw ngir jàpp ci teeru bi jóge ci gox yi nga xam ni ñoo wër Njaasaan yëgal nañu koy kilifa diine yu ñu wër ndax nee na président Macky ne tànneef la am na xam-xam yaru na mën naa yorum réew ne alhamdulilahi loolu dañ koy sante yàlla ne te am réew caaxaan yoru ko danga nga dëggu nee na da ngaa dëggu da ngaa am yërmande loo waxit dinga ko def ne alhamdulilahi loolu dañ koy sante yàlla ni président bu ñu ko falee ba noppi bu ko neexee def neneen bàyyi yoon wi jaar ci neneen naka sa dul noonu jaar ci ñax mi waaye yow président Macky sëriñ bi ne defoo loolu ne loo wax rek di ko def am nga it ci askan wi ne këru diine yi bëgg nga leen te yaa ngi leen di sagal bu baax a baax ne teraanga ji nga def Tiwaawan teg nañ ci suñu bët te bëgg nga koo def fépp ne kër gi ñuy tuddee këru xilaafa muy kër Cheikh bu Mohamed Kunta ne tabax bi ñu ci jëkk a tabax dangaa ñëw ni ñu dindi lépp jox ko entrepreneur muy Papa Abdou Fall dëkk ci dëkk bi ne ñu ngi nii di ko tabax li ci des bareetul nee na ñaari weer mbaa lu ko néew ci kanam rek incha allah daañu ko mën a inaugurer président sëñ bi ne nañ la ñaanal ci biir ak ci biti yàgg sa soxna si ne na seen xel dal lépp loo bëgg ci réew mi incha allahu sunu borom dana la dimbale ba loola nga mottali ko sëñ bi nee na sa xel dal ñaan dafa am solo ne bi ñu ñëw dañu jàng bi ngay ñëw dañoo jàng alxuraan ñaan nga ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ne loolu dara gënu ko nekk garanti kon noo ngi lay gërëm noo ngi lay sant yàgg sa soxna si Adja Marème Faye di ko ñaanalit ne sa soxna yàgg na ko defal ay teraanga ne booba sax gisul jëmmam ne moom it gisul jëmmam ne loolu mooy jàppale président de la république te nee na wóor na ko ni nii nga ko defale noonu nga koy defale yeneen kilifa yépp ci yu bare bare ne ngan gi di danoo bett gàmmu gi jublu si dimaas la incha allah bu du woon xat-xat boobu ne kon di nga xam sunu yéene ci dikk gi nga fi dikk ne dikk bi rëy na lool macha allah ne jërëjëf yal na la yàlla jàppale amin ci biir ak ci biir ne li nga yéene ci réew mi yal na ko yàlla sàmm yàlla na yàlla sàmm la ubbi la yoon wi ba lépp àgg ci barke Seydouna Muhammad bark Cheikh bu Mohamed jërëjëf na ne jotaay bi yàgg na te bu ko defee ñu yeewi la nga dellu ci jàmm ak salaam incha allah ñu ñaanal la it tekki bismillah ñu tàllal loxo yi te wax amin ne amin amiin amiin amiin xalifa bi yàlla bàyyi ko fi amiin président de la république yeggale yéeneem yépp amiin amiin télé waaw waaw